entre cinquante ans mm. ba jëm kaw mm. mag bu ci am jot am cinquante ans ba jëm kaw rek mm. accueillir na la ci biir magu Pastef tey magu magu Pastef euh, est-ce que ndax ni nga ko waxee euh, dañu yam rek ci yor seen i course ñaana Ousmane Sonko wala yéen a ngi def ay activité ndax tamit am ngeen ay comme ni ñu ko waxee bureau bi am na ay secrétariat ak yeneen yi nga xam ne euh, war bureau war na ko composé yëpp wala ndax da ngeen ñëw rek comme ni nga ko waxee léegi toog seen i kër ngir ñaanal Ousmane Sonko wala di leen conseil waaw boo xoolee magu Pastef en tant que instance du ah. parti hmm. euh, euh, ni ni ni ni mouvement parti bi yëpp instance parti bi yëpp bindoo la bindoo hmm. ndax instance parti bu dee xale yi bu dee jigéen ñi hmm. ñëpp ñoo bokk ni ñu bindoo waaw ah. magu Pastef kon dafa am coordinateur am secrétariat am ay commission hmm. ci biir waaw ah. wante euh, dafa am benn volet buñ ci dolli hmm. mooy étude hmm. et projet ci magu Pastef ndax comme que waaw magu Pastef comme que ña fa nekk dañ da ay nitu d'expérience lañu waaw am ñoo xam ni am na lu ñu fekke am na ñoo xam ne dafa am ay domaines yu ñu yëngatu kon Euh, au lieu ñuy def nii yeneen parti daan def nga xam ne da nga ñëw topp rek. bu mm. meeting jotee nga dem ba élection jotee nga dem. Mm. bu waa ji faloo xool xool li muy def. Mm. fii nag dañoo bëgg indi loo xam ni. day nekk un plus pour réew mi. tey jii ñun mag Pastef yi nekk Touba. dañoo commencé Touba. daan nekkat ñun bu ñu sañoon. bu Ousmane Sonko jëlee réew mi. dinañu am luñ ko tegal ci taabal bi. ne ko lii. pour Touba. ci ay projet ci ay projet mhm. ndax fii may fii may waxee yow. waaw euh, li nekk Touba te Touba ni mu ni mu bindoo. Touba mhm. ay taalibe fi nekk. donc dan ne boo jébbaloo ci sëñ bi. Mhm. yow jox nga sa bopp sëñ bi. leer na amoo tànn. amoo lay wax. ndigalu sëñ bi ngay déglu. lu lu sëñ bi déglee ñu nekk ca. wante du tee. gis ngeen ci dëkk bi Touba ci kanam juddu na fi. effectivement am pàcc bu ñu nekk di liggéey. Hmm. am na ay daayira daayira bu Tarqiyyah mi ngi fi. Hmm. am na yeneen daayira wilaaya mi ngi fi. Hmm. yeneen yeneen daayira am na fi te ci biir daayira yooyu yëpp am na ci ay borom xam-xam. te euh, wante li ma la wax rek dëkku ndigal la. sañoo jël sa sañ-sañ di ci jëf te sëñ bi digul la ko. wante danoo yaakaar ni. Mm. état am na pàcc boo xam ni moom la concerné. Mm. ndax ñun Touba dafa nekk ci biir état. Mm. am na loo xam ni tey boo ko bëggoon def loo maire yi Touba la du sama compétence. état moo ko war a def. kon ñun dañoo war a def lenn. comme que mënuñoo ñaxtu. sëñ bi dañu gis ci biir Touba ñuy nekk di ñaxtu. dañuy toog xalaat. dañuy gis biir Touba. te xam ni état waroon na ko def. te defu ko. ñu xalaat ko Touba. noonu lay def ci réew mi yëpp. Hmm. tey jii mun naa la jox exemple bu bu yomb. waaw dafa am parti bu ñuy wax nii euh, hmm. ci biir étude bi. waaw lu jëm ci wàllu ndox. ndox hmm. dans ci sens yëpp. ndox ci wàllu ndox mi nga xam ni. baaxatul dañ ko war a sànni. ndox mi jógee ci taw bi. ndox mi nga xam ne da ko war a naan. lépp ndox la. waaw mais benn bu ci nekk. am na nuñ ko tuddee bale eaux usées la. mooy ndox mu ñu jëfandikoo hmm. bii yàlla jee ko wàcce taw la hmm. bii ay forage lay doon ñu war ko naan hmm. benn bu ci nekk li ñu gis ni mun nañ koo dolli ci dëkk bii bis bu état waree war koo def bu Ousmane Sonko ñëwee dina ne ko lii kat ñoo ko liggéeyoon ngir proposer la ko ngir Touba ñu def ko fi bu wa bu fekkee ci wàllu assainissement la am nañu étude bu ñu teg ba pare def ko ci wàllu assainissement gis nañu point yi nga xam ni moom la ñu ko def point de déversement yëpp. Hmm. ak projet bi nga xam ne sëñ Saliou moom la njëkkoon initié ci wàllu euh, euh, utilisation de l'eau de pluie. Hmm. parce que dafa waxoon ni dañ koy commencé fii ci euh, ci jumaa ji. mu dem ñu jaar Kër Ñang hmm. mu continuer ñu jaar cambia mu continuer mais dafa waroon continuer ba xel Xelkom. loolu mooy projet sëñ Saliou. pour eau de pluie. léegi eau yi nga xam ne nag c'est des eaux use Hmm. am na benn projet boo xam ne gars yi tàmbali nañ ko fële booy dem ci kàddu balu ji. boo gisee nii waa UG waa UGB la. gis naa seen hmm. camions yi garé foofu. Hmm. am na benn kii benn ki ñu def def ci bâche. kooku pour traitement des eaux use la woon. mais eaux usées yi mooy oto yi nga xam ni mooy oto yi nga xam ne dañuy manque di dem di fa sotti. yooyu la ñu waroon jël traité ko waat. génne ci engrais. mun naa nekk génn ci loo xam ne day nekk énergie. mun naa nekk. génne ci ndox moo xam ne boo ko purifié mën nga ko arrosé. Hmm. loolu mooy projet bi normalement noonu la waroon demee. Hmm. te bu ma juumulee loolu am na xalaat yoo xam ni tëgg nañ ko ba pare. Hmm. am na tamit ñeneen ñu ci xalaat. mais comme que gis naa ni tàmbali nañu dara loo xam ni tàmbali nañ ko mais xaw ma nag lu ko arrêté. wax dëgg yàlla ndax euh, suivre ma projet boobu. assainissement bi tamit am na lu ñu ci tàmbali woon am na lu ko arrêté. am na lu ñu ci xam mais du loo xam ni euh, comme que ay kilifaang ci beeg yëpp du loo mën a wax. effectivement donc xam nañu. Hmm. am nañu am nañu am nañu information yi. Hmm. Euh, fi mu nekk nii man maa ngi nekk euh, maa ngi nekkoon ci domaine aéronautique. Hmm. du tee fi mu nekk nii maa ngi def un suivi. waaw boo xam ni sur la plateforme de GTA. GTA boo boo ko déggee. mooy plateforme bi nga xam ni. foofu la gaz gi feeñee entre Mauritanie. waaw ak Sénégal. kuréel bi ñuy wax ANACIM. waaw dem na fa pour pour pour certifier. Hmm. benn euh, plateforme. ELI ñu ngi ko tuddee ELI plateforme. mooy pour hélicoptère yi. Hmm. fi ñu war a wàcc. waaw ndax def nañu installation yi. Hmm. ndax BP moo koy traité BP moo ko gagné. BP moo fa nekk. BP fi mu nekk nii euh, def na fa benn euh, foo xam ni hélicoptère war na fa mën a wàcc pour. personnel bi ñëw ci biir géej gi di liggéey si. kon euh, waa ANACIM fi mu nekk muy kuréel bi nga xam ni ñoom ñooy homologué loolu. actuellement maa ngi jot information yi. Mm-hmm. ci suma benn xarit bu ñuy wax Serigne Top. Mm-hmm. ci biir euh, Facebook am. Euh, donc moom dina may envoyé ay ay ay information ñu ngi def mm-hmm. homologation pour certifier loolu. pour xool ndax méngoo naag niñ ko ni ko aviation bindee. pour hélicoptère mun faa wàcc. waaw dem nañ fa ba saytu ko. kon yàggatul peut ci kanam tuuti ndax def nañu installation yëpp. Hmm. Euh, ñu war ko parce que loolu kuy kuy aspiré di wutub réew ëllëg. Hmm. yooyu yëpp war nga koo xam. Hmm. population bi war nañ koo xam. te malheureusement nag Sénégal euh, gis nga ni ñuy euh, ni état di dundee état bi nga xam ne politique bu yàgg ba la ñuy def. gis nga ni ñuy def peuple bi. mooy dañuy fexe di la dugal ci ay détails yoo xam ni. yooyu doo ko toppatoo. effectivement nit ñaa ngi wax gaz pétrole mais ñi ñaa ngi liggéey. mais doo dégg benn débat. ba wax ni fii la euh, liggéey bi toll. ñu ci hmm. infor ñu ciy informer population bi ndax ñoom jàpp nañu politique ñu mooy. Hmm. dangay ngay làq sa askan dëgg bi. waaw pour ñoom loolu lañ jàpp mooy politicien bu bu bu ne la bi aay na rek mooy fexe nga ba làq sa askan dëgg bi. effectivement nag gaz bi nekk nga jege bi bari na ñoo xam ne bi mu tàkkee lañ koy soog a. xam ne foofu am na te gaz boobu. xam nga kañ la am. Hmm. ci jamono yi bët Sénégal yaa ngi doon dégg projet bu ñuy wax bët Sénégal. bët Sénégal. bët Sénégal. la woon bu fi nekkoon. boo xam ni dañ fa daan bay xaal xaal xaal melon bi melon. xaali melon melon bi foofu lañ mm. ko njëkk expérimenté ay tool la woon. Mm. ba fa gaal feeñee. Mm. la bàyyi tool ya. effectivement kon yàgg na. am na benn euh, euh, euh, association bi fi amoon. Mm-hmm. bu bu président bu jabaru président bi fi nekkoon Abdou Diouf. waaw yore woon muy fondation. fondation boobu. ci ci gaz boobu feeñoon foofu. Hmm. moom lañ doon alimenté tribune yi nga xam ni tribune à gaz yi nekkoon Sénélec. Hmm. gaz boobu moo leen daa alimenté. am na parti boo xam ni bu ñu ko jëlee gaz boobu bu ñu ko jaayee Sénélec. waaw dem ci biir hmm. ONG boobu. loolu ca jamonoy Abdou Diouf la. bu madame Elisabeth. Malit madame Elisabeth. te Sénégal yi mosuñu ko xam. ndax ñoom noonu la noonu lañ jàppee. PSE da nga sa gëmloo askan bi que ne gaz feeñagu fi wala. gaz yàgg na fee feeñ exploité guñ koog yu mel noonu yëpp ñu ko gaz yàgg na fee boo demoon ñi ña ñi ñàkkoon Senelec. xam nañ mm. turbine à gaz yi bi foofu la daan jógee. Mm. moo taxoon ñu doon ñu amoon ay à gaz di di di di di créer courant. à mm. partir du gaz. kon gaz yàgg na fi mais politique boobu moo fi yàgg am. effectivement peuple bi du xam li xew. ma jox la benn anecdote bu yomb. bi ñu génnee élection 2000. waaw. dafa am benn Camerounais boo xam ne expert en en politique la mu amoon euh, rendez-vous ak président Ablaye Wade. Hmm. ma jël ko di ko yóbbu ci sama oto. ci aéroport mu jëm booru euh, euh, Kalao. Hmm. ci yoon bi mu jël carte am jox ma ma gis ci consultant en politique. Hmm. Camerounais la. boobu lay Abdou Abdou Abdoulaye Wade di doog a euh, di doog a toog en 2000 hmm. mu ne ma euh, yow da xam naa ku la gis xam ne doo politicien man ne kon non man kenn duma ma du ma politique. Hmm. mu ne ma naa la jox benn information dama lay laaj mu la laajoon tey jii. Hmm. Abdoulaye Wade kan ma ko doon financé ci campagne loo may wax. ma ne ko Abdoulaye wàdd de ah campagne bi de damaa jàpp ni. benn campagne wala campagne yi mu naan def boobu campagne en 2000. Euh, bi muy bi muy gagné réew mi. oui mu ne campagne électorale boobu. Mm-hmm. financement yi fu mu jóge man ne ko ay partisans am ak ay mm-hmm. am di jàmmam ak peut-être ay partenaires am. Mm-hmm. ñoo koy jox xaalis. mu ne ma waaw loolu de xalaat la. Ah. mu ne ma loolu rek nga ci xam nga ne ko loolu de loolu laa jàpp. mu ne ma naal jox benn benn benn benn information wante ci kanam nga ciy xam dara yow. mu ne ma. Ah. Abdou Diouf. Mm-hmm. moo doon yónnee xaalis à travers ku ñuy wax Bourgi. Mm-hmm. di ko jox xaalis mu koy indil Ablaye Wade ngir mu am xaalis bu mu. campagne campagne ci doxal parteem ma ne ko loolu mënul nekk. ah Abdou Diouf. Euh, Abdou Diouf en réalité moo daan financé Ablaye Wade ci ay campagne am dimbali na ko ci campagne am. jox na mm-hmm. ko xaalis. ma ne ko loolu mënul nekk ndax kii tëj na ko sonal na ko nanga mu ne ma loolu politique la loolu dañuy ci jot bariwul moom waaw mu ne ma loolu politique la hmm. wante dama lay wax li am hmm. léegi nag bu dawee ba ci kanam ah. di nga gis preuve hmm. pour nga xam li ma la wax ma ree na ko sawaay yow da baax rek ñu dawal Ablaye Wade toog daal di jël abdu Diouf yóbbu ko francophonie waaw ma ne ah bon Abdou Diouf jóge fa amatul benn relation waa PS Mm-hmm. ba tey jii may wax ak yow Abdou Diouf doo ko dégg mu tuddal la PS. bokkul parti socialiste. Mm-hmm. yëngatuwu fa waxul ak ñoom. Mm-hmm. te loolu man mënu ma koon xam en tant que sénégalais te mënu ma koon jàpp. te mu ngi doon dox ci entre ñoom. effectivement kon politique booboo fi am. kon nit ñi. te loolu mi ngi am ba léegi. loolu mi ngi am ba léegi mais yàlla dafa dogal. Macky Sall dafa dafa daf ñoo leeral lépp. leeral na lépp. lu gars war mais yu mel noonu nag est ce que yu neex a xam la même bu fekkee ne am na ay euh, opposants yoo xam ne peut être ñu ngi leen koy defal jamono mais est ce que lu neex a xam la aussi. looloo tax ma ne la. Hmm. dañu dama yaakaar ne rupture moo nar a am. Ah. Sonko. Hmm. rupture moo ah. nar am. ndax Ousmane Sonko. Hmm. li ñu li ñu li li ñu seq. mooy waxante dëgg. li ñu seq mooy na wax Sénégal yi dëgg. te bis bu ko yàlla joxoon réew mi. na doxal ci dëgg tey wax senegal yi dëgg te loolu la ñu am njott te loolu ci ah. loolu la ñu ànd ak moom te loolu bu amee rek hmm. population bi bu ñu xamee liy xew hmm. ak li président bi di liggéey mu hmm. leen di wax dëgg dëkk bi allah kulli xalin day dox ndax dëgg moom fu mu am rek xamal ni moom yëf yaa ngay waaj a dox wante fu safaan fu am safaan ba moom fu mu am yàlla moom kenn mënu koo nax. effectivement déedéet yow mën ngaa nax nit ñi ndax nax nax nit moom dafa yomb. waaw mm. yow yow euh, euh, man mën ngaa maa nax. Mm. mën ngaa nax sama morom mën ngaa nax keneen mais yàlla kenn kenn mënu koo nax. Mm. te yàlla nag moom may xaar ba àpp ba jot. waaw bu bëggee dimbali ab peuple. te ñun Sénégal te jàpp naa ni dama gëm loolu. lu ma gëm la te di ko doxe sëñ Touba li mu ñaan du du neen dañ koy dund fii. Mhm. ñu fekke ko ñu bañ koo fekke yàlla nañ ko fekke sëñ Moudou Moustapha doon na wax ni. Mhm. kaasu kafe gii may naan. te ah. jàkkaarloo ak moom. Mhm. la sëñ tubaa wax laa gën a gëm. looloo ma gën a leer. kon bisa ngi ñëw. Sénégal ni mu war a mel dina ko mel. wante nag. dafa am loo xam ni moom mooy tegtal ya. xam nga ni sëñ Touba du liggéey liggéeyam bu rëy bii. ñàkk fu la jël ay loxoy tilim di ko ci teg munul nekk. sëñ Muntaxa mii tey bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon dénkaane dara. Hmm. day xool ku wér ku loxo ya set mu denk ko ko. wér na kon. Hmm. loolu allah kulli halim faw Sénégal yi tànn loola. Hmm. bu ñu buggee tàmbali Sénégal bu naat. foofu la ñuy commencé nañu seet loxo ya. nañu seet ku set. te li ñu yotagum nag ci information ci Ousmane Sonko. waaw ak foo mu jaaragum ci liggéeyu kaayam. ak lañ cee jot dégg ndax kat sëñ saa ñoo ñu ni bul atte kenn. ci kaw lan la nettali. Mm. ak la nga njott ci moom. de ko àttee ci kaw li nga gis ak la mu la mm. wax. Mm. kon am na ñu nekkoon ak moom. ci impôt domaine wax keroog gis naa ab soxna soo xam ni génn na daan ne ci ay wax jug mu daan ne sama baay de. waaw li ngeen doon dégg Ousmane Sonko ne am na ko ko joxoon xaalis. mu delloo ko ko sama baay la woon. te boobu kooku dafa amoon problème eh, yu mu amoon ci ay terrain ngor yooyu. waaw xale bu jigéen bi génn wax loolu kook kon ci laay doo a ni. Mm-hmm. kon am na ku ko jéem a eh, eh, ci liggéeyam rek. Mm-hmm. mu koy neexal ndax da def liggéeyam. Mm-hmm. te cent millions la woon. xale bu jigéen bi ko wax mu delloo ko ko ne ko non dama doon def sama liggéey rek. kon jàpp nañu njub googu am na ñu ko seede. te njub googu tegtal la. te gis naa ni tamit am na kilifa yoo xam ni fii ci dëkk bi. ñeme nañ ko. te seq nañu moom te nangu nañ ko. te man xam naa ni de wax dëgg yàlla. Hmm. ak lu ñu mën ci wax ci àddina. Hmm. sëñ Cheikh Saliou dégguma ko ci dara ci àddina. ci wàllu ci wàllu ci wàllu àddina liggéey la xam ak jaamu yàlla. Hmm. bu jëlee ab nit nangu ko taf ko nangul ko dara benn minute rek. seq ko moom. kooku de ku ne de amul lu nekk ci moom waa mbaa mbaa sellul mbaa ab taalibe nekkul ci moom mbaa ab jub nekkul ci moom dina ma jaaxal ndax sëñ Cheikh Saliou ñu gën a xam nit fop fop fop ndax toog naa ab nit ku ñuy euh, ab kilifa gu mag mënu ma ko tudd nag. waaw bokkandoo jàng njàngandoo mook sa euh, Cheikh Saliou ca kër sëñ Souhaïbou hmm. moo taxaw de te kilifa gu mag la mi ngi fii ci dëkk bi ba léegi yàlla yàlla na fi yàgg te mu ne ma de mun naa wàcc alxuraan de ne sëñ Cheikh Saliou amul bàkkaar hmm. loolu moom kilifaa ba ko wax ndax lu li mu xam ci moom kon hmm. kooku bu demee ba nangu nit rek ñime ko rek am na lu nekk ci nit kooku ñun nag ñoo ko dul xam wante mun nañ ci rafet njoot hmm. waaw magu Pastef euh, ci lañ nekkoon xam naa ne dañ ciy desandi ba ci kanam magu Pastef euh, Euh, daanaka yéen dañu leen di dégg ci ay projet yoo ama ama am solo ñu ci bari sax euh, daanaka xamuñu capacité wu magu Pastef ak yi ñu nekk di liggéey li nga ci jot a dugg léegi ay euh, projet yoo ama am maanaala yoo xam ne réew mi soxla na ko waaye soxla na tamit ku ku leen ci taxaw jamono yële ñu ngi waxtaan ak góor gi Serigne Diouf moom tamit mu traduire woon li nga xam ne moom mooy projet Ousmane Sonko yi ci eh, làkku wolof muy yoo xam ne yu ama am solo la yoo xam ne magu Pastef ñu ngi koy def mais est-ce que ñi xam ne ñoom ngeen ko sekkal en commençant par Ousmane Sonko lui-même ndax eh, li ñuy wooyee magu Pastef cerveau de Pastef eh, yéenay xelu Pastef ndax ñi ngi leen di déglu bu baax a baax ndax jox nañ leen gëdd bi war ci biir parti bi tamit waaw parce que boo xoolee xam nga dafa am magu Pastef national waaw am magu Pastef ci euh, dëkk yëpp. département yi waaw yi. Mhm. léegi euh, dañu waroon defaat beneen daje. Mhm. boo xam ne dinañu dinañu gën a euh, defalaat bureau bi. Mhm. ndax bi magu Pastef di tàmbali donc waa dakaar ñoom ñoo ko tàmbali woon. donc ñu ñu ñu nommé benn bureau national. léegi jël ñi nga xam ni ci jamono yooyu même bu ñu amagul woon. instance départementale euh, jël na leen installé leen ci biir Magu Pastef donc am na Magu Pastef national. Mhm. donc am na bureau bu ñu créé sur le plan national. Mhm. mais da euh, xam nga ak yëngatu-yëngatu yi ni mu demee nii. waaw nit ñi amat amaguñu temps même euh, pour toogaat. Mhm. defaat ba soit benn assemblée wala dara. gën a def parce que dañ ne woon dañu bëggoon département yëpp. le département bu nekk am Magu Pastef. ci démarche yooyu lañ nekkoon mais xam nga événement yi jàll nii. waaw mooy tax mooy indi blocage te loolu la gouvernement bi di liggéey. Mm. ndax bañ Pastef déroulé. Mm. ndax xam nañu ñun dañu am activité de massification. Mm. ak d' organisation. boo xam ni euh, ci loolu la ñu nekk. mais duñ ñu may fu ñu ko defee. chaque jour dinañu dugal ay procès. ay euh, euh, bloqué kii jàpp militants yeeg yooyu moo tax ba mais loolu moom. jàppal ni magu Pastef national am na. waaw. te liggéey bi ñuy liggéey nii. Mm. Euh, sur le plan départemental. Mm. ku ci nekk dan da ngay liggéey sa gox. bu ñu paree def ko benn téere boo xam ni. Mm. bu bu yàlla joxee réew mi. li ma la wax rek bu bu réew mi tegoo ci la ku ci nekk ci sa biir gox ba nga nekk. war ngaa mën a am loo xam ni moom ngay teg xam nga fi mu nekk nii boo xoolee état bi. Euh, euh, état bi day nekk léegi politicien bi nga xam ni moo nekk ci gox bi. gox bu mu nekk politicien bu amee doole. Mm-hmm. moom mooy fexe ñu def dara ca gox ba. na. Mm-hmm. mais yeneen gox yi am problème bu amul politicien bu am doole. Mm-hmm. kenn du fa def dara. amuñu leader. waaw fu mel ni fu mel ni Touba. yàlla daf ñoo dimbali sëñ Touba teel ñoo yee rek. ñu am une une une une indépendance économique. moo tax Touba état du ko mun gàllankoor kenn du ko mun gàllankoor. taalibe yi tamit sëñ Touba yar leen yar leen ci loolu ba nga xam ni moo tax Touba.